xooli li nga defoon ci Tëngéej te ñëwaat nañ dem lan moo amoon Soda moo doon def tànn béeram nañ dem seeti ko ñu xool ko ñëwaat doo yem Tëngéej rek ah yemal Tëngéej daal nañ dem nañ dem ñu may dem ziar bu baax a baax Aba maa ngi lay nuyu tey maa ngi biir Rufisque maa ngi biir Rio tey li fi am tànn béer bu mag la soo doon fekk bu mag boo xamante ni kenn dootu ko présenté kenn ci réew mi dafa naa ni tey ah, lu leen la fi am dañuy dem léegi dëggal soo doon ñu ànd leen moom nan dem nan doxal ayca nan dem waaw Cheikh Bamba yaa nii moom Mame Bamba moo nii moom Mame Bamba yaa nii moom Soda Ndiaye moo yëngal gësam defe naa ni tey sama baat bi commencé naa dem xam naa ni coow li la ak yëngu-yëngu yi si ko guma nag ba xaar waaye mënu maa bañ a ñëw fii ndax damaa gis koo xam ne dafa sañse lu jekk toog fii def bu baax tabaarikàlla maa ngi lay nuyu bu baax soxna si. maa lay fay bu wér a wér ñun ñooy groupe waa doomu Tëngéej nga xam ñun ñëpp benn lañ ba tax na soo dafa sargalee Ibou mel na doomu Tëngéej gépp la sargal moo tax lu ñuy jàppale dañ ko bàyyi ñëw ci bisu sooda bi jàppale Ibou Géwal délégation bi mat na sëkk waaye ba ba léegi waa doomu Tëngéej laay xaar ci biir géew bi waaw ñu ngi ñëw léegi à suivre am na lu ma namoon Aba namm ko ñi ci plateau beeg téléspectateurs yi ñëpp namm mooy lañ daan gis Oscar des vacances est que mën nañ xaar léegi waaw xaar leen ko léegi fan a ngi nii ma jàkkaarloo capitaine loo xamante ni tabaarikàlla du ma ci wax lu dama koy bàyyi mu nuyoo maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo baax a baax. waaw yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla namoon ambiance bi danoo namoon lii danoo namoon rythme yeeg yooyu tey fekk leen fi ngeen teew teewal Soda lu waral loolu. waaw bon avant tout dañ leen di nuyu vraiment di kontaan ci yéen aussi bon di kontaan ci li nga xam ne moo fi am quoi xam nga donc Soda moom suñu Soda la xam nga suñu sóora la parce que ñun euh, ñun ñoo leen seen grand donc daan représenté la vie de Rufisque nga xam nga si compétition bu ne en danse xam nga yàlla defal aussi vraiment xéwal boo xam ne nii ku ñu mës a dajal gën nañ la xam nga ba ñoom sóora ñoo nekk dernière génération bi nga xam ne nii ñun ñoo leen formé xam nga ba tey boo xoolee ñun Japon léegi dañu nekk si festival ak yooyu quoi xam nga léegi nag lu mel ni bu amee vraiment mu ñëw sollicité ñu xam nga ñu nekk ay grand nekk ay ancien donc day rafet ñu ñëw vraiment teewal ko jàpp si jour bi xam nga vraiment mu xam ne ne na ay magam yoo xam ne si ginnaaw xam nga di ko jàppale te mbooloo mooy doon aussi waaw mu nekk xale bu yar aussi nekk koo xam ne nii ni ñu ko yoree vraiment yàqul dara ci aar bi xam nga ba tey su wootee lu mel nii dañuy ñëw vraiment pour tekkal ko quoi waaw mais nañ ci yéen bu baax a baax xam nga jaajëfal jaajëf jaajëf taxaw bii fii moom mënu ma fee bañ a taxaw tabaarkalla sama question bi jiitu sañse bi lay doon soxna si na nga def. naay fii. la nga sañse baaxee boo ko. merci beaucoup déedéet. kon moo waral sañse bi ñëw toog ca kanam. waaw Soda dafa doon ñu mag bu baax dëkk ci koñ bi yëg ñu yëg waa Tëngéej waaw moom daal dafa baax daal nit nekk nit ku oyof daal. damay taxaw fële benn question moo nekkoon sama xel ma ne bu ma ñëwee dama la koy laaj ndax am nga borom kër. <laughs> waaye àdduna ah ah en ñu ngi ñu ngi kontaan ci sañse bi ñu ngi kontaan aussi ci teewaay bi maa ngi xaar say pas de danse fële. waaw merci beaucoup. merci beaucoup. merci tamit seen teewaay. ok. man tam teewaay am na borom kër. Oh. <laughs> ci biir ndaanaan yi la ñu fekk fii mu toog tey ndaanaan la ñuy sargal muy Ibou tey li may tàmbalee mooy di ko ziar Ibou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi ni ziar bu baax a baax a baax a baax. yàlla Ibou ñu namoon la ci petit écran bi namoon la ci kaw scène bi Ibou kenn xamatul woon ci lu mu nekk tey ñu ñëw fekk mu koy sargal ban sensation la am. waaw kontaan rek xam nga lii c'est la première fois di leen jaajëfal bu baax di leen wax seen liggéey rafet na depuis ba ma doonee booy ba léegi ñu ngi may soog a sargal kon bis bi dafa doon loo xamante ne bi du ma ko fàtte ba ilaa yawmi diin soo def lu rafet sargal ma na mënoon na ma xeeb sama jëmm ñeneen ak ñeneen ñi ay ñoo xamante ne borom daraja ñoom ñëpp ngi fi mënoon leen dem dem sargal leen waaye man sama jëmm ju tuuti ji muy def may sargal bis du ma def lu dul kontaan si waaw di kontaan nag bu baax a baax a baax a baax waaw. tey ma rappelé leen tuuti daan nañu seetaan euh, doomu Tëngéej daan gis Ibou ci Oscar de Vacances mu ne ca kanam di def lu ko neex tey ñu sargal ko dafa naa ne lii mooy fay gu mat sëkk ga tubaarikàlla ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf kontaan merci beaucoup. jaajëf de relève baa ngi ñëw ko leeral tuuti. relève baa ngi ñëw. di nuyu nag abaa baax a baax a di ko woon nag bii sax ñu jàpp mi di dër rek ak boobu réew bi. non non nag. tey wax na baax a baax Aba maa ngi lay nuyu tey maa ngi biir Rufisque maa ngi biir Rio tey li fi am tànnbéer bu mag la kenn ci réew mi dafa naa ni tey ah, lu leen euh, woon euh, foofu nga xam ni euh, moom mooy ca Tëngéej yaakaar naa ni su ma jumul demoon ñu rendre ji kan ku ñu doon rendre hommage noonu. Ibou Ibou Guéwal nekkoon su ngeen fàttalikoo Oscar des vacances. képp ku daan seetaan Oscar des vacances. Mhm. daan seetaan doomu Tëngéej di gis benn xale bu ndaw nekk ca kanam mm-hmm. di fecc di ŋàng